suñ nekkee ci réew li itteel réew mi mooy jàmm li itteel réew mi mooy afia mooy féex li itteel réew mi mooy ku nekk ca la nga ne yàlla di la ci dimbali ba ba nga cay am la nga ci bëgg loolu moo tax ñu woote tey jàmm jooju senegaal gépp xam nañ ni suba am na xew-xew ñi nee nañu lu rëy la ñii nee nañu lu màgg la mais xew-xew la boo xam ne ku nekk ngi koy redouter te loolooy dëgg li ko nit ñi di redouter du nit ñi dañu ragal du nit ñi dañu tiit mais nit ñi dañu sonn ci injustice bi nga xam ni moo am ci suñu réew ku la neex nappaaje ku la neex dóor ku la neex exile ku la neex tëj kaso loolu moo fi war a doy moo fi war a jeex loolu moo tax lii ñu dëgmal tey fas yéene ci jëm suba doon lu am solo ñu fas yéene ci waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen pour sant yàlla d'abord parce que situation bu exceptionnelle la dañu yaakaaroon ni après 2013 et 2017 aucun leader politique ne devrait plus jamais, jamais vivre ces moments-ci. surtout su fekkee loo xam ni la lu ko jarul la lu dul dëgg la lu wóoruwul ci lu wéeruwul ci fenn moo tax ñépp jóg ñi jaaxle nañu ñi révolté nañu ku ci nekk ci ñaar ñooñu am na dëgg parce que jaaxle mooy que ni xel yëpp dañ dem ci mars ñëpp ragal mu dellusi si nous ne pouvons pas ne pas y mais nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars. Je le dis clairement en français, pour que nul n'en ignore et qu'on comprenne. Nous ne saurions, nous ne pourrions exclure une réédition de mars. du lu ñu bëgg du lu ñu ñaan du ñu lu njort du lu ñuy dox du lu ñuy sabab mais gor la ñu wa moomul di toroxal ak gundoxataal góor goo bëgg def yenn yi rek mu fippu teg ba am am nu mu wane loolu moo tax ma ni une réédition de mars mën na ne mais du lu kenn ñaan du lu kenn bëgg du lu kenn xalaat mais mën na ne beneen bi nit ñi tiit tiit parce que su fi yenn yi amee kenn xamul ci kan lay dal ci kan lay metti mais képp ku mu dal ci yow képp ku mu nekk ci yow dana metti ci ñun ñëpp moo tax ñu bari tiit yaakaar ne walla gëm ni war nañu mën fexe ba loolu dootu fi am cette valence de mes propos signifie quoi que Yewwi Askan Wi est dans une posture de responsabilité Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve. Et nous sommes prêts à tout assumer et assumer toutes nos responsabilités. mais li ñu gëm te bëgg ko mooy su fekkee yoon rek la ñuy doxal amuñu tiit tiitaange amuñu njàqare ci fii ñu jëm suñ ci bëggee laxas jaan nag dana mel neneen dana deme neneen dana nekk neneen je veux vraiment être très clair pour que tout le monde sache que am na lu kenn dootul nangu dans ce pays on ne peut pas accepter que dans ce pays qu'un pouvoir puisse à chaque fois choisir ce contre qui ou ce avec qui il doit compétir ou se battre parce que nag nañ ko wax ali kale ji mooy coow lii lépp mooy comment liquider un adversaire politique loolu mooy dëgg bi quelle soit la forme que cela prend quels que soient les moyens qui sont utilisés la finalité elle est unique elle est te loolu du fi amee incha allah looloo waral tey ñu daje ak yéen mooy tëj waxtaan fas yéene waxtaan ak askan Cheikh Tidiane Dièye mu ubbi waxtaan yi nar wax ci turu Yewwi Askan Wi ku nekk dana wax ak xolam mais dana wax ak xelam parce que qu'en définitive la seule chose qui nous importe c'est la paix dans ce pays c'est la sécurité dans ce pays c'est la sûreté pour les citoyens mais kooku duñ ko waxee dañ koy jëfe ku nekk ci ñun war na ko dox war na ko wax mais am na lu kenn dul nangu loolu laa bëggoon duggee ci waxtaan wi wax leen ni Ousmane Sonko est très très serein il n'a aucun problème avec ce qui va se passer demain il est dans des dispositions de citoyens et de responsables et de justiciables mais il assumera toutes ses responsabilités si c'était nécessaire yi di nuyu askanu Sénégal yépp yi nga xam ne ñu ngi toog di ñu déglu ak di ñu seetaan président xalifa wax na ko xew-xew moo mooy am ci réew mi suba incha allah xew-xew la nag bu tax lenn ci leader yi toog fii mu di xalifa ak président Déthié mi nga xam ne mu ngi ci yoon wi di ñëw sori woon réew mi lool ci seeni activité dagg ko dellusi pour wan leen solo soo xam ne lii ñu jëm suba am na ko pour ñun ak askanu Sénégal yépp lii am suba lan la dossier la boo xam ni dafa am ñaari pàcc benn pàcc bi mooy pàccu judiciaire bi ñun duñu ci xuus ndax du suñu cër am na ay avocat yu koy liggéey waaye en tant que citoyen yoo xam ne topp nañ ko comme ni ko askanu Sénégal yëpp toppee boobu dossier li ñu ci dégg li ñu ci gis ak li ñu ci xam avocat wax ko publiquement juriste wax ko publiquement ñeneen wax ko publiquement askanu Sénégal yëpp am nañu certitude que sur le plan judiciaire dossier boobu amul dara loo xam ni mën nañ cee toppe Ousmane Sonko jàpp ko ci wala ñu def ko lu lu jëm ci lool donc loolu dal na suñu xel conviction bu ci sénégalais yi amoon daaw moo tax bi ñu ko yëkkatee ñëpp jóg waaye beneen tànk bi nga xam ne moom lay doxee mooy pilier politique dossier la boo xam ni dossier politique la ñun nag loolu mooy suñu cër fii ñu toog dossier politique la parce que dossier la boo xam ni ni ñu ko fomanté mu di complot yàgg nañ ko wax bi mbir mi jógee askan wi yépp jàpp nañu ni complot la bu ñu créer construire ko pour taqal opposant leader d'opposition boo xam ne bii dafa contre président mu bëgg cee jaare faagaagal ko comme ni mu ko defee woon pour xalifa Sall mënu ko comme ni mu ko defee pour pour Karim Wade te mënu ko te loolu lépp gis na ni am lajj na ci daanaka waaye comme ni mu ni mu ko taxawee ba nga xam ni ku jóg mu daaneel la mu jaare ci loolu pour bëgg faagaagal Ousmane Sonko waaye askan wi jóg bañ ko li fi xew mars 2021 yéen ñëpp fekkee ngeen ko askanu Sénégal gëm gu mu gëm ni complot la kese buy faagaagal ak fexe ba Macky Sall toog fi di buur di bu mi def lu ko neex ku àndul ak moom mu mu yàq la tax askan wi jóg gàntal boobu loolu mu yëkkati woon loolu nag lañ koy bëgg a fàttale ni contexte boobu amoon deux mille vingt et askan woowu mu jàkkaar looloon askan wi jógoon pour aar démocratie sàmm état de droit fexe ba président bu fi nekk doo def lu la neex ak ku la neexul nga jël faagaagal askan woowu ba tey moo taxaw ci kanamu Macky Sall ci kàddu askan woowu lenn ci askan woowu la ñuy waxee ña fi amoon daaw kuréel yi fi jógoon leader politique yi ak parti yi ñi nga xam ne dañu bokkoon ci m ay dem boo jag man mii toog ci taabal ji ak ñeneen ñu sosoon ko bokk ci ak ñi fi nekkul ñépp dañu jógoon pour ni espoir bi Sénégal am espoir boobu duñ ko bàyyi mu naxsaay te espoir boobu mooy opposition bu ànd am projet politique bu bees bëgg fi jëlee Macky Sall ak système am teg fi leneen maki bëgg koo gàntal loolu la askan wi ne du am te ci boobu taxaw lañu taxaw ba tey muy contexte boo xam ni Macky war koo comprendre ñaareel bi dëgëral contexte boobu te loolu mu ñu ko koy dànkaafoo xalifa wax na ko léegi am na loo xam ne ñun duñu ko nangu en tant que leader politique de l'opposition waaye xam nañu ni am na loo xam ni askanu Sénégal ñu ko gën a bañ parce que askan wi taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall tey. dafa gëm ni moom rek moo yor pouvoir te wane na ko ci ñaari élection yi romb jël Macky Sall def ko minorité à l'Assemblée nationale jël pouvoir bi jox ko opposition pour la première fois askanu Sénégal def ko askan woowu moo jàkkaarloog moom muy loo xam ni war na cee bàyyi xel ci contexte su ni Sénégal évolué ci weer yi ñu génn li ci topp mooy mu ànd ak askan woo xam ni euh, mu di pàcc boo ci jël force de sécurité yi nii ñuy xalaate noonu la ñuy xalaate parce que ay sénégalais lañu ay patriotes lañu ay citoyens lañu boo jëlee ci homme religieux yi boo jëlee ci syndicat yi boo jëlee pàcc boo jël ci askan wi ñépp loolu la ñuy xalaat ne nag li tax ñu gën a taxaw ci boobu xalaat mooy dañuy dund ci jafe-jafe yoo xam ne on a un peuple quasiment affamé affamé fi ñu toll ni boo nekkee président nag def ay lajj ci wàllu économie ak sociale ba sa peuple affamé war ngaa xam bu baax fi ngay teg sa tànk boo dee yëkkati dossier yoo xam ni mën naa taal réew donc loolu itam mu bàyyi xel na ci contexte boobu la nekk fi may daaneele parce que suñu leader yi toog fii dana danañu yeggali boobu waxtaan mooy ñuy lancer appel Macky Sall lancer appel peuple yi xale fu wax na ko boo taxawee ci dëgg doo ragal boo taxawee ci dëgg doo yaafuus boo taxawee ci dëgg doo yox yoxi te xam nañu ni lii ñu taxaw moom mooy dëgg mais askanu Sénégal li mu ñu dee ñu dégg ko ñu gis mu taxaw ko ci taxawaay askan wi war na ni Macky Sall dina ko barrer la route ba lii muy jéem ci Ousmane Sonko pour gàttal ko pour que li mu def Khalifa def ko Karim gàntal ko ba du mën a nekk candidat wala keneen ku jóg ci opposition mu jaaree la ci loolu c'est terminé dans ce pays loolu lañ mooy liñ ci bëggoon yokk mu xam ko ñuy rappeler ndax on bien placé pour le faire jàmm rek la ñuy wër ci réew mi jàmm ci la ñu mës a taxaw. ndax acte bi ñu mujj a daaw ci mille vingt 2021 ci wàllu dossier bi ñun ñii ñoo ko dox bi réew mi demee ba yegg fenn fi ñun ñoo wàccee ba jàmm am ci biir réew mi ñu continuer dox ci dem ci Touba dem ci Poroxaan dem ci fépp waxtaan ak leader yépp pour wan leen ni ñunkat dañ ñoo song jéem ñoo toroxal waaye jàmm la ñu bëgg ndax Sénégal jaral nañu lool ñuy ñaanaat ñooñu ñu jàkkaarloo loon wax ak ñoom ñu bàyyi seen xel ni ñu ngi jëm foo xam ne ni bu ñu bàyyee mag yi mu def li instrumentaliser justice dina indi jafe-jafe yoo xam ne du xam fu muy mujjee ci réew mi donc loolu lañu bëggoon yokk ci campé décor bi mu xam ko xam ne lii mu jëm du ci am ndam askan wi dina ko gantal dina taxaw ci kanamam waaye dinañ ko def ak responsabilité dinañ ko def ak gëm justice dinañ ko def ci wut jàmm bu mat sëkk ndax loolu mooy suñu cër en tant que acteur politique. mais Ousmane Sonko dañ ko convoqué woon gii ñuy woote nekkul waaye man maa nekk di def pression pour ñu woo ma parce que damaa bëgg dossier bi jàll. bu ñu toppoon Ousmane Sonko kese tey jii Khalifa Sall du jël avion ñibbi si biig si guddi ñëw fekk suñu fii bu ñu déglu woon Ousmane Sonko Déthié Fall du nekk si yoon bi di ñëw duñu fekk si fii. bu ñu déglu woon Ousmane Sonko xëy na même conférence de presse bii du am parce que moom jàpp na ne dafa war a dem wuyu ji dafa war a dem leeral ci kanamu yoon donc que personne ne considère que dañoo bëgg a faagaagal quoi que ce soit dans la marche de départ par contre il y chose que nous ne ferons pas nous ne considérons pas que cette affaire est une affaire privée. Et personne ne nous fera le complexe de penser que c'est une affaire privée, que nous nous immisçons dans une affaire privée. Dans une affaire privée, qu'un de se sentir État. Cette affaire du début à la fin, on sent la main de l'État. fàttali ko leen ne woo nañ fi Ousmane Sonko bëggoon koo woote levée minute parlementaire fàttaliku leen condition ñu lever immunité parlementaire assemblée nationale fàttaliku leen na ba ñu lever immunité parlementaire yóbbu ko si juge bi dafa saisir conseil concerné teewul ñu continuer di def loolu fàttaliku leen aussi ne il y a eu plus d'une de morts avec des vidéos yu ñëpp seetaan y a jamais eu d'enquête sur ces gens-là loolu moo na gën a garaaw fukki nit ak ñeent moo gën a garaaw lu ñuy dem ni woote Ousmane Sonko tey te état yi ba léegi kenn sentirul loxo sentir nañu aussi état bi bu ñuy woowee Ousmane Sonko mel rek le citoyen ordinaire policier gendarme on mobilise tout le monde fu nit nekk Sénégal gendarme wala xale bu ndaw policier ñu indi la ñëw Dakar na la kaaju la gars yi ñëw wuyu si fii pour pour convoqué nit tey mu ñëw wuyu tribunal jarul le déploiement même de l'autorité administrative mu wàcc si kaw tali bi pour ne day xool naka la kii di dem di wuyu ji euh, tribunal donc on considère pas que nous sommes dans une affaire privée on considère que ce qui s'est passé avec Khalifa mu jóg jóg ne dafay defi tournée dem ba Tamba ñu woo ko ne ko kaay wuyu si li xewoon ak Karim Wade moom la ñu bëgg a def effectivement ak Ousmane Sonko et nous n'accepterons pas que Ousmane Sonko soit euh, sacrifié sur l'autel du désir d'un troisième mandat cette crucifixion politique là bu ñu bëgg a tàmmal à chaque fois que ñu dem vers une élection ñu nekk ñan ak ñan ñoo fi mën a nekk ay candidats yi mu mën a sonal on trouve les moyens de d'écarter ces gens là loolu le peuple sénégalais bi sonn Sénégal ku ne xam na ne c'est un peuple de justice ba bëgg yoon bëggul ku néewal kenn doole boo gisee sénégalais yi di nangu wàcc ci tali bi di xeex c'est pas simplement pour tel ou tel autre leader c'est parce qu'on considère que notre démocratie est en péril c'est pour ça que Yewwi Askan Wi reste saisi de la question e on verra avec beaucoup de vigilance à tout ce qui va se passer autour de cette question-là tant que da nga wuyu tribunal dem audition juge la il n'y a aucun problème. Les problèmes que nous avons à régler dans notre pays, ce n'est pas simplement un problème avec Ousmane Sonko, Khalifa Saleh, c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire qui concerne un homme politique, on sent la main de l'État derrière cette affaire-là. L'Union avec le Sénégal, moi, nous ferait pour justice indépendance, bon, kenn du sentir une insécurité judiciaire dans ce pays-là de sorte que boo woowee on sait tout de suite que c'est la mère de Macky Sall qui derrière et à chaque fois qu'ils ont pris la parole ils se sont trahis ce que nous n'acceptons pas donc aujourd'hui c'est que l'un d'entre nous là au niveau de Yewwi Askan Wi et au niveau de l'opposition et d'ailleurs au niveau de tous les leaders politiques que quelqu'un puisse être sacrifié comme on l'a fait dans le temps simplement parce que le président de la République ne dans sa volonté de faire un troisième mandat. Parce que simplement les gens veulent aussi continuer. li ñu di xalaat mënut a nekk cette kii de là wax dinaa dem waaye dinaa yóbbaale diw loolu aussi on ne peut pas l'accepter au Sénégal Macky Sall a fait ses deux mandats il part on laissera au Sénégal ñu choisir ku koy remplacer dans notre pays il faut qu'on arrête de vouloir imprimer une marque personnelle à la démocratie dans nit nag iñaan amul si nit yàlla mooy def benn nit yéen jamono nit nekk un phénomène boo ko xajowul fa xol nag yow yaay am problème démocratie fair play la demandé démocratie ouverture la la demandé démocratie accepter esprit de compétition la demandé mais ce qu'on n'accepte pas c'est que quelqu'un puisse utiliser les moyens de l'État la puissance publique pour écarter un adversaire politique C'est ça qui explique que Yahya se mobilise autour de cette question-là. Nous nous mobilisons aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour suivre le dossier, mais nous allons aussi nous mobiliser, faire en sorte que le droit soit dit, qu'il soit bien dit, que l'indépendance de la justice soit respectée par tout le monde et par tous. Je vous remercie. di rafetlu kàddu euh, Moussa Tine li mu wax léegi loolu kese moom moo mat a tàmbalee mooy yeewu askan wi taxawaay bi ñu taxaw taxawaay la boo xam dafa war a leer ci bopp sénégalais amaana sax nit ñi ñoom jàpp nañu ni ay nit ñu bokk ambition waruñoo mën a yéenante jàmm wala waruñoo mën a juboo ma leen di rassurer ne leen Yewwi Askan Wi c'est famille fii euh, du mbiru politique kese moo ñu boole ndax wax na ko léegi euh, Khalifa Ababacar nekku fi woon dafa dagg voyage am ñëw Déthié Fall nekku fi wante xelam yépp mu ngi fi ak ñeneen ñi nga xam ne sax xëy na matewuñu tey teew ñun ñëpp xam nañu seen xol mu ngi fii l'heure est à l'unité may wax ni li woon moo woon ni président Macky Sall li mu jotoon a def loolu mënatul a nekk ci jamono juñ toll nii ndax nag président Ousmane Sonko naam Pastef moom moo ko boot naam laytaay yi askanu Sénégal da cee am wàll mi ñu xam ni rogganti bi yeewi askan wii la yeewi askan wi da koo roganti parce que dañ koo jël jiital ko ci élection législative bi wëlbatiku jël kuréelu maire Séné maire yi nga xam ne yëpp moom la am muy reyal dégg ko ko. wëlbatiku nag may ko cër te cër boobu da ko may kenn ku nekk ci ñun donc tey dépassé na mbiru parti politique wala mbiru euh, euh, domaine privé wala mbiru nit ak ak digganteem tey c'est comme un frère un ami moom moo nekk ci jafe-jafe noonu ko waa Pastef jàppee dañ ko war a taxaw nu weesu noonu ñun ñii waa Yewwi noonu lañu xalaatee noonu lañ ko war a taxaw may wax nag ne président Macky Sall euh, bu ma yeboo ne nit ku iñaan la nit ku soxor la nit ku xat la parce que nag xat xol weesuwul nga doxal sa jamono te nga ne kenn du doxal jamono xat xol weesuwul yow 2009 ba 2011 ngay lambar lambar yow néegu ñax sax dugg nga ko fu nekk dugg nga fa génn fa def sa ay tournée tey un parti politique jóg taxaw di def nemmeeku tour lu ne nga nga nga mobiliser ko ci arsenal politique arsenal militaire arsenal gendarmerie police lépp taxaw dëkk bi pendant trois semaines kenn waxul lu ci nemmeeku tour dëgg la dañ ko war a woo dañ ko war a atte mais momento bi ndax lépp lu am rek da nga naan moment ba mu amee ndaxte nag foog naa 2021 ak léegi yàgg na dara lan moo tax moment bii tey looloo teyal xelu Sénégalais yi li teyal xelu Sénégalais yi mooy lu tax ñu choisir moment tey bi pour woo ci Ousmane Sonko mi nga xam ni boobu ba léegi mu ngi naan woo leen ma ndaxte mbir mi dama koo bëgg simmi teg fee balaa may dugg ci candidat présidentiel naam sax sénégalais ñoom raxas nañ la ba nga set wecc parce que fii bu nekkee dafa am ñu détourné woon ay xaalis. ci ci caisse d'avance sénégalais nee nañ ko gëmuñu loolu parce que xalifa mi tey lañ ko gën a jox bopp ba mu ne kii dañ ko wax ci ay mbiru euh, euh, mœurs sénégalais yi tey lañ ko gën a jox bopp parce que dañoo jël laabe loolu jël plus de 83 députés ko suñ loxo kon sénégalais ñoom euh, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts waaye tey li am mooy depuis trois semaines gis ngeen persécution bi am ci nemmeeku tur bi nga xamante ne Pastef mu ngi koy def ak ak gis ngeen même violence yi nga xamante ne dem na ba am ba ay nit ñu leen ci songu di kar ay convoi loolu yépp ci xatum xolu président Macky Sall lay amee waaye nag ñu koy araftu di ko wax ne ko 2021 li amoon naam dañoo wax ne ñoom nit ñi dañoo xiifoon ak nit ñi dañoo maroon ndax dara jotu ko politique dara jotu ko soulèvement populaire man de li ma xam te ñun ñëpp ñu xam ko te gis ko itam ci suñu élection yi passé mooy xale yi Sénégal ndaw Sénégal ñoom ñoo jóg taxaw ne dootuñu seetaan seetaanati mukk ñuy tënk nit wala ñu lay seppi wala ñu lay toroxal wala ñu lay faagaagal te nag tey Ousmane ko moo aaye waaye nag nga xam ne aaye bi nag njël li da koo bokk ay moroomam ndax njël lii mu aaye tey kenn ku ne da ngaa dugg teg ca loolu mooy wane ni waxuma la du ci wéet mais kenn dadul nangu di seetaan askan wi di ko seetaan jeunesse bi di ko seetaan kenn du ko seetaan kon nag ñun ñëpp may ñaan ñu ñaanal jàmm Ousmane Sonko jaanal ko jàmm yeewi te Sénégal yi nga xam ñu ngi toog seen biir kër man ñoom laay yóbbante ndax nit ñi nee nañ pression dafa am mais kan moo indi pression ku ñu woo jeudi tey lu ci yoonam ci pression kan moo teg pression bi ki bunkériser dëkk bi ki nga xamante ne foo romb bu fekk escadron yi taxaw ki nga xamante ne euh, def na ay rappel des troupes def fexe sax ba fuite ay message ndax kenn doful kii kenn doful ñëpp xam nañu lu génn ñoom ñoo ko génnee fuite ay message ñu naan tàngoo pa Charles Bravo mel na ñu nekk ci James Bond ah du yóbbu fitu nit ñi du yóbbu xelu nit ñi nit ñi dañoo xiif nit ñi dañu tàng dañu sonn euh, l'équipe hivernage bi baaxul na président Macky Sall wax ci jafe-jafe yooyu na wax ci arme yi nga xamante ne génnee nañ ko barki dee bu ñu wax nit ñi naka la ñu signé contrat yu mel noonu nañu wax ci aali kala ji mais bëgg a daw débat bi tegal nit ñi ay faux débat bu ko kenn nangu may tëjee nag juste wax ak opinion internationale. Emma di leen santate rek président Khalifa ñëw nga. waaye bi ngay dugg la am kuy jën waaw ndax da njëw pour déglu askan wi ndax askan wi def laa won wanati la kii dem nanguwul a déglu askan wi Ousmane Sonko jamono yi nga xamee ni ñu ngi koy teg lii ñu ko teg parce que nag dina wuy ji moo demande wuy ji d'accord na ci respecté na institution wu réewam waaye nag nañu seet fu mu jóge dañ ko ko teg ñenn ñu ni ko muñal nattu la biñ ko koy laataan teg nag ñun séentu nañ lu nekk dañ doon wax ne Ousmane Sonko wasin na rek lañ ko desee ndax attaqué nañ ko siège am attaqué nañ cortège am ay yoon yoon lii xew ci kii du bees ci moom fu mu tourné ñu kar ko attaqué nañ ko assemblée day jékki-jékki rek ñu song ko dama mujj dem ba assemblée ni ko bu dee am naa ci yow benn cër bul ñëwati assemblée nationale ci député boo xam ni da demal sa bopp ñëw 2017 dugg ci assemblée nationale lu ne ñu war ko ko lu ne mu gis ko ñu yeewu un beau matin benn journal la ko yëgal ni ko accusé dañ la nàngam ñu nangu ñu nangu ko nag muy dogal boo xam ne dañ ko nangu te booba yeewi amagul booba benn groupe amagul waaye Sénégal gii yàlla def fee def ay nit yu juste man de personnellement te na ngeen ma baal parce que mosuma nekk ci Yewwi Askan Wi wax moi parce que le moi ay haïssable waaye tey damay obligé bu may def jeunesse bi wax ko ndax bi may constitué wu kenn santu ma ko waaye bi ma ko koy wax daf dama dëj sama doom bu góor ni ko kii toog de lu ma ko yéene yàlla na ngeen ko bokk te suñ ko tegoon lii tey duma xam fan laa koy waxe man mi défendre jigéen man mi nekk à la base de la loi sur la criminalisation du viol man ma bokk ci ay instances au niveau international yuy lutter contre les violences faites aux femmes tey man mii may xalaat sama doom bu góor parce que ñu ngi ñuy andil le revers de la médaille ñu ngi ñuy andil loi boo xam ne dañ cee sonn ñu ngi ñuy andil loi boo xam ne bañ koy concevoir dañ ko concevoir dans un esprit de justice et d'équité ñu daal lu ñu wanul amul ci biir loolu ci biir loolu nga xam ni dama defoon ni avo ñii di ma tooñi avocat dama defoon ni avocat assemblée nationale la rek parce que ba intérieur assemblée moo wax loolu ni ku ñuy yëkkati sa immunité parlementaire sa collègue moo lay défendre ma défendre ko mu nekk défense boo xam ni gêné nañu bëri ci laa xam nu intimidation mel ndax man dama defoon ni kenn du ma intimider ci laa xam luy corruption ci Sénégal ci laa xam luy esprit de sacrifice ci lay xam luy abnégation ci lay xam nag luy muñ ay milliards ndax mënoon naa ko ci am te yéen joxu leen kon loolu <coughs> dafa am foo xam ni fa la nit ña jëm te fa nit ña jëm fa la askan wi jëm ñu toog nekk di traîner Ousmane Sonko dans la parce que bu yàgg lañ lañu lañu lañu démontrer complot bi bi ma ko jëkkee wax complot bi maa ngi ko waxee grand jury maa ngi ko wax devant Babacar Fall démontrer ko complot bi ak message bi nga xam ne moo leeral complot bi parce que xam nañ ko waaye li nga xam ne téye nañ ko nag muy complot bi foofu laa ko démontrer Sénégal yëpp d'accord ci de haut magistrat daal dee ne ñun mësuñu gis ku ku dul pratiquer droit génne droit ni nga ko génne booba lañ defoon ni dina jeex askan wi ni ko bu jeexul ñu jeexal ko affaire bi waroon na jeex depuis le 13 mars 2021 le 11 mars ci guddi sëñ Mountakha Bachir yónni doomam sëñ Bassirou Porokhane Cheikh waa M2D seen xol tàng na ndax nee nañ ñun ñoo wañ seen loxo keroog le pour ni leen la manifestation bi waroon a jeexal li lépp le 13 ñun ñoo wañ seen loxo pour pourtant nag ma leen di yëgal ni leen su amaatoon tey mu amaat. ndax ku nekk da nga am gëm-gëm te kooku noonu ca tuuba bu yónnee ndaw ka mu yónni daal ni ko lii la ñu bëgg ñu def ko nañu arrêté manifestation yi dañ koy def ba pare bàyyi yàlla ak sunu bopp parce que foofu lañu ñu ndax bam ñu teree ñun bàyyi nañu bañ ko waxee fukki nit yi ak ñeent yi ca gaañu bàyyi nañu mu ni bind leen jox ñu ba ñuy bind ba ñu ñëwee ba ci neuvième point bi tudd nañ ci Khalifa sàll mii parce que dañ ñu ko lii raam ci ñag bi la jëm te kii dafa bëgg a ne ay nit ñoo xam ne dañoo am ambition loolu lay bañ loolu lay xof daf koy xof moom Macky Sall day xof ambition bëgg koo dégg te dama su démocratie lañ nekk am mouvement ba nga xam ne du juddu na muy mouvement pour la défense de la démocratie loolu rek doyoon na message pour moom mu mën ko décrypter. askan wi ni ko li nga wax ci Ousmane Sonko yëpp traîné ko dans la boue dégguñu ko ndégal ba mu taxaw Ziguinchor mu dem Ziguinchor ñu jox ko ko joxaale ko nag ci turu coalition bi mu nekk beaucoup de ville villes beaucoup de grandes villes dont la capitale muy la ville de Dakar qui dit ñu dem élection législative actuellement ñu créer une situation inédite non seulement au niveau de l'Assemblée mais au niveau de la tradition parlementaire bi ñuy demandé nañ dugal article 60 ci constitution c'est que majorité moo daan ñëw jël député opposition bi mais tey opposition nekk assemblée di lëmbe di jël député majorité ba xanaa neex na doyatuñu doyat doy loolu doyatul sénégalais yi ci seen bopp nii dafa am lu fi daan am dootuñu ko am man xam nga ku may gën man askanu Sénégal ay gën askanu Sénégal ak ku leen déglu nag ndax la ma waxoon nit ka rek dama dem banlieue ci benn xew ñu ne ma ana say garde corps man leen maa ngi askan wi ku nekk ak askan wi doo soxla garde corps ku nekk askan wi doo soxla sécurité boo xam ne day gaañ kenn askan woowu nag tey ñoom la ñuy njukkal wax leen ni ñu ngi dégg ndigal ba tey ndax ba ñu sëriñ bi ne bàyyil keroog le 13 mars 2021 amoon nañ possibilité lépp jeex. waaye ba mu ñu nee bàyyil dañoo bàyyi ñu wax askan woowu ni leen ñu ngi ànd ak yéen ci seeni jafe-jafe parce que dañ leen a diggoon ni leen dinañ wàññi njëg yi te kenn mënu koo wàññi comme kenn mënu la am leneen lum leen lay ñu jël Ousmane Sonko teg fa ñu wax askan bi ni leen ñu ngi jël seen alal di ko defee naka sudul noonu ku nekk xam nañ ni ministre bi ni moom mooy jënd ay arme warul la jënd arme ndax armée bi nag ñu am fulla lañu armée dafa organisé te nag yenn yi ñaari yëf ma jaaxal ci mbir moom benn dañu dañu dañu dañu banaliser milliard léegi milliard daal dootul dara ba ñu jël ay quarante cinq milliards yu ko jiiñante leneen li ci des mooy yëpp suñu armée bi suñu armée bu organisé bii sunu organ armée bii nga xam ne dañu am des inspecteurs techniques yoo xam ne xam nañ fu arme dugg suñu armée bii nga xam ne fexe nañ ba armée sosoo ba nëgëri armee bu arme bu nekk ñu immatriculé ko corps para corps paramilitaire bu bëgg arma armée bi moo la koy jox ñu bàyyi fa loolu yëpp di indi ay waxi politique naan lii lii la dugg ak laa duggu waxuñu ci àll kalaj ji xanaa ñëw naan affaire audition Ousmane Sonko dañuy findu nag te Yewwi Askan Wi muy findu parce que waxatuñoo ak Ousmane Sonko citoyen ba nga xam ne moo ñëw former parti waxatuñoo ak Ousmane Sonko leaderu Pastef waxatuñoo ak Ousmane Sonko honorable député parce que immunité parlementaire boobu ñu nangu te mujjul mujj fenn askan wi moo ko joxoon um, Ousmane Sonko ba nga xamee ne nangu nañ ko ci tooñ askan wi ñu joxaat ko lu mais léegi dañuy wax ak Ousmane Sonko leaderu Yewwi Askan fi may jeexale nag mooy ñun ay gor lañu ba ñu waree dem élection dañ ko ni ñëwal yaay jiite sunu liste ñoo ko sant parce que daf ni woon du ma cumuler ñu ni ko ñëwal quand même jiite sunu liste mu ñëw ragal tiit ga nekk ca liste ba la Ousmane Sonko jiite moo tax baax na ci ñun moo jiite campagne bi ñu am résultat yi ñu am ak des euh, ak suñu list bee kon suñu toogee ba tey ñu ñëw naan dañuy faagaagal Ousmane Sonko dañuy considérer ni ñun yeewi askan wi dañu yàpp parce que nag ñun ñoo ko def suñu champion ñun ñoo ko def mu jiitu ñun ñoo ko def ni dañuy ànd àndu nawle mais ci biir ànd nawla bi dañoo d'accord ni conférence des présidents Khalifa Sall moo koy jiite mu nekk président xaw na sax moom ci boppam yëg ni mooy président ba ma ko naan dañ lay traduire haute cour de justice ak yooyu yëpp parce que dañ ko def comme ñun suñu président de la république boobu cër lañ ko jox itam muy convoqué di santaane di tere ñuy bàyyi loolu mooy ànd gor générosité du xaalis da ngay am générosité ci daraja da ngay am daraja ba pare parce que fii ay leader de parti rek ñoo fi son Sonko noonu lañ ko defee suñu champion bu ñuy dem di wuti les suffrages des sénégalais ni ko jiitul bu ñuy dem fenn ni ko jiitul yéen sax bu ñuy ñëw ci yéen ni ko jógeel Ziguinchor ñëw jiite conférence de presse bi lii bëgg ko woon wax nañ ko waaye dañ koy def parce que ñun ay gor lañu te duñu gën a gore kon nag nañu wax président Macky Sall ni ko na delloo boppam waxuñu ko sax nañu xool ñun mais na delloo boppam na xool askan wi. nit boo jiitee réew yàlla may la nga jiite réew li ngay njukkale yàlla njukkale ko nit ñi la jiital mooy seet seen bëgg-bëgg nga topp ko loolu la président yi di def président lu laa ngi nii dellu si parce que dafa bëgg réewam ba réewam bëgg ko nit da ngay bëgg sa réew boo demee yi da ngay dellu si waat que y a pas mille chemin nit ñi ñoo am jooju fulla ku leen bëgg ñu bëgg boo amee sa njaboot boo ko bëggee njaboot gi dañ lay bëgg yàkkamte la boo demee ñu namm la boo demee ñu jaarale la waat ci beneen buntu delloo si la xanaa moom bëggul loolu na déglu askanam parce que askan wi nag joxuñu ko un message codé de un message bien décodé lañ ko jox ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu nekk ak askan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. lii président ma Macky Sall di def xamul ne dafay dooleel Yewwi Askan Wi. ndax coalition Yewwi Askan Wi léegi famille la te ci famille boobu membre famille bi képp ku ñu ciy tooñ di ko inquiété injustement famille bi yëpp dafay jàpp considérer ne moom it dañ koy inquiété loolu moo tax ñu def bloc pour faire face à ce régime waaye li ñuy jàng ci situation bi moo di président de la république Macky Sall dafa jaaxle tàmm na bépp opposant boo xam ne nii war na ko mën a gagné ci élection mu def tout pour bundu xataal ko ba du mën a participer ci élection def na ko ak Khalifa Sall doxul def ko ak Karim Sall Karim euh, Wade doxul bëgg ko commencé def ak Ousmane Sonko waaye gis na la xew ci mois de mars bay passé ba mu ca jógee nag mu ne ah lii xew day dootul xam dootul am dem uti doole doole boo xam ne ni uti ko pour aar Sénégal mais def ko wut pour noot askan bi ba ñu ci jógee muy bàyyi dossier bi muy dem di dem teg benn épée de Damoclès ci bopp Ousmane Sonko pour rek bañ mu participer ci élection yi di ñëw Ousmane Sonko nag loolu la comprendre wax leen ne leen dama bëgg ngeen def tu ba dégg ma ci dossier bi au fond loolu moo waral convocation wu suba bi ñu leen di wax nag ne leen nañu def très attention soxlawul ñu ci dem ak nenin nañu reste ñu nekk qu'on vigilant ànd ak dal te it bañ a yàkkamti ci dara xam ne combat bi mi ngi ñëw wax bi wax naa ko ci français lu may wax ci olof du gudd waaye it ñu ngi wax ñooñu nga xamante ni nii ñoom ñooy juge juge yi ñu leen di wax ne leen bu xaalis wala carrière taxee ñu war a bàyyi seen ngor bu xaalis ak carrière taxee ñu war a nërmel askanu lëm nañu xam ne loolu ëllëg danañ ko layoo ak seen conscience d'abord askan bi danañ ko layoo ak askan bi et danañ ko layoo ak histoire Sénégal donc loolu lañ leen di wax juge yooyu ne leen lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def ci dossier yi nga xam ne nii ñoo nekk en cours nañ ko xam te it jàpp nañ ne xëy na am na njort bu rafet ne Sénégal dafa am justice bu bu bu bu bu impartial waaye ni ñuy doxee gis nañ ne it mën nañu ñaaw suñu xel ba ñu wax ne it am na justice boo xam ne nii pour Macky Sall ak ñi mu àndal ak justice boo xam ne nii pour opposant yi la parce que gis nañ ñi fi def ay njombe yu toll ni ni ñay ñu ngi nekk di dox ku mel ni Bougazelli crime bi mu def mu waroon nekk ci prison yi tey mi ngi nekk di dox par contre ñi deful dara comme ñu mel ni capito euh, Papito Kara Ousmane Diagne Abdou Karim Gueye defuñu dara ñu ngi nekk di leen tëj parce que ñooñu dañuy bañ li Macky Sall di def parce que bokkuñu ci même bord que Macky donc loolu nag du yeewi askan wi rek moo ko mën a dindi mais Sénégalais yëpp ñoo mën a def bloc ànd ak yeewi askan wi mu jóge fi moo tax ñu ngi leen di wax ne leen xeex la boo xam ne nii mi ngi soog a commencé ndax Macky Sall mii ñu ko seqal nekk na koo xam ne nii gisatul déggatul li mu bëgg mooy toog fi ba 2035 comme ni ko ñi wàndal di waxee loolu waaye loolu dana fi dakk loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum baykatu Sénégal nappkatu Sénégal sàmm senegal ci turu yeewu askan wi ak chauffeur seeg journaliste yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci suñu tur turu président Khalifa Sall nga xam ne mooy président de la conférence des leaders ñi fi jaar léegi wax nañ ko di ko masawu coono man xaw ma nu mu dee baax si sax parce que biig la jógee Paris xaw ma nu mu débrouillé ba jaar Tanger jaar Casablanca soog a mën a ak si Dakar à trois heures du matin nelawul suñu frère Déthié Fall mi ngi ci yoon wi di ñëw ñi fi jaar njëkk ma jël kàddu wax nañ ko pour askan wi xam ñenn ñi nga xam ne ñi ngi wax ci yeeyu askan wi te xamul nan la ñu tëddee mooy ñi ma jiitu lu ñu wax nous sommes une famille politique rek léegi boolewuñu mais dafa am ay jukko ay valeur yoo xam ne ñoo ko seddoo bokk ko moo tax ba lii xewee dal ci suñu frère Ousmane Sonko ñu taxaw taxawaay bu mel nii réew mi nag mën nañoo wax ne jaxooti na réew mi yëngooti na Macky sàll ci boppam tëggati na nëndëm jubul jàmm ndaxte ca senegal bu njëkk ga buñ mësaa attaqué réew mag ñi dañuy tëdd tëgg réew jibul jàmm lu tax ñu ne tëgg na ndëndu jibul jàmm mooy kii nga xam ne mooy usmaan Sonko wax nañu ko moom mi nga xam ne moom lañuy ñu wekk complot bi adduna yëpp xam ko mu xamal ko boppam sëkkatal leen wax ak ay avocat am nee na maa bëgg ñu woo bu ci atte waree ñu atte ma ngir que loolu faree gannaaw jàmm am ci réew mi waaw ki nga xam ne moom moo moom yëf yi wax loolu ana lu ci génne fetal ana lu ci génne ay bataillon gendarmerie ana lu ci indi police ana lu ci indi ana lu ci indi ana lu ci indi kon ma bëgg li ma wax léegi réew Sénégal ngeen xam ne Macky sàll ci boppam ak gouvernement ñoom ñooy yee fitna waane nag bu ñu umpale ak ñiñ ko seq fii kenn du fi yaafus ñun ak moom xamante nañu xalifa wax na ko sànq li fi nekkoon ci ndaw le 3 mars ba le 8 mars ñoo fi nekk ba léegi dara jógu fi bu yaakaaree na défaite boobu mu amoon mars daf ko bëgg a fayu ci lii mooy mi ngi ndax boppa ndaxte seytaane baaxut rawatina ci nga xam ne mooy jiitam réew mais damay wax ne Macky Sall contrairement à ce que pensent certains est une médiocrité politique expression que j'emprunte d'ailleurs à Trotsky, qui disait de Staline qu'il est la plus éminente médiocrité du parti. Macky Sall est une éminente médiocrité politique ndaxte bu fekkee da jiite réew président Abdoulaye Wade moo ñu doon jàngal mu ne ci politique rawatina boo dee chef d'état booy dugg ci néeg da nga war a xam xalaat buñ tëjee bunt ba fan ngay jaar ba génn mais dans ce dossier de Ousmane Sonko Macky Sall s'est tiré une balle dans les pieds ñaar mooy am ci moom soit mu jéem a jàppalu Ousmane Sonko te mënu ko moom du ci mucc soit ñu bàyyi ko te loolu mooy am te du ci mucc donc comme on dit il est impossible de sauver le soldat Macky Sall. qui peut le sauver? naa ko fii artu ko ne ko bul ko jéem mais dafa dëgër bokk di ko jéem. mais boo amoon xel tuuti bu amuloon problème de cerveau comme je dis comme m'a dit ma petite fille lii du ci dugub alors moo tax bu ngeen xoolee ci ni muy tëralee politique à chaque fois qu'il essaie il réussit à échouer il réussit à échouer Ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il fait en termes d'infrastructure. Rien n'est sorti de sa tête. Tout cela sont des projets du président Ablaïwad. Moi-même, j'y ai travaillé en tant que ministre chargé des infrastructures. Le terre, le BRT, je suis allé même jusqu'à Prague pour, pour, pour, pour, le négocier. Il n'a fait que suivre le tracé que nous avions déjà réalisé pour le euh, futur tramway. Les autoroutes, Dakar, Saint-Louis, etc. Tout ça, rien n'est sorti de sa tête. Rien, je vous le dis, et je le défie. Diamniadio, rien. Ne vous laissez pas impressionner. Alors, celui-là. Donc, l'icône de Serek, moi, jéem a def pexe pour que ëllëg si mu jéem a def troisième candidature présidence de la république comme il a éliminé d'éminents leaders politiques Khalifa Sall Karim Wade il se dit que léegi kii moo ko dese Ousmane Sonko mais il se trompe il peut pas le réussir parce que le peuple la jeunesse est avec Ousmane Sonko c'est Chateaubriand qui disait avant les révolutions d'éminents esprits meurent dans l'oubli parce que leur public n'est pas arrivé. Après les révolutions, d'éminents esprits aussi meurent dans l'oubli parce que leur public est parti. Et aujourd'hui, c'est le public d'Ousmane Sonko qui est arrivé, il faut qu'il l'accepte. Son public est parti, lui. buy doxantu fii ci tali bi kenn du ko xool lu nekk jéem na ko jëre oto nangam nangam et cetera dem ci plage bi kenn faale wu ko <laughs> quand Ousmane Sonko fait son émeque tour mais c'est tout le Sénégal qui se lève ko c'est extraordinaire vous croyez que ñun dañu ànd ak Ousmane Sonko comme sa rek c'est parce que comme je l'ai dit on partage des valeurs nous tous ici alors il faut qu'il arrête il faut qu'il le comprenne lui Macky la justice e li nga xam ne moom la fi Macky toog boobu ba léegi li mu réussir surtout mooy décrédibiliser la valeur de nos institutions jusqu'à l'institution des forces de défense et de sécurité Abdou Diouf defu ko Senghor defu ko Abdoulaye Wade defu ko mais aujourd'hui ñàkkloo na un peu fayda nos forces de sécurité ba kenn régalatul leen kenn régalatul gendarmerie kenn régalatul police et cetera ñoxor njaay ñu leen di dig mu mel ne marché Sandaga alors que c'est c'est une institution le fondement de la nation que l'on doit préserver waxuñu nag moom institution président de la république ko wax mu ne waxi Macky Sall jarul dóor sa doom heureusement pour l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on est en train de réhabiliter le, la crédibilité de l'Assemblée nationale par, nos, par l'opposition. Heureusement. La justice. La justice, la justice. Vous, magistrats, qui nous jugez, et surtout pour ce cas d'Ousmane Sonko, c'est une occasion historique pour que ni leen askan wi di xoolee ngeen dindi ko mu jeex vous avez une référence c'est Kéba Mbaye peut-être qu'il n'était pas le meilleur juriste du Sénégal et de l'Afrique mais jikko kaddu éthique teg ko ci dëgg moo tax boo wëree Sénégal def naa ne benn magistrat ngay dégg askan wi Sénégal yëpp xam ko personne n'ignore Kéba Mbaye il a honoré la justice Je vais citer ami à côté, la Guinée. La justice était à terre. Mais avec cette affaire du 28 septembre, ah, les magistrats sont en train d'en profiter pour redorer blason, se faire une autre de la... au niveau du peuple. Il y a un suivre. Aujourd'hui, Fodjar Guinée, Conakry, on applaudit les magistrats. Ils vont nous dépasser. Alors que vous êtes les premiers. Vous êtes même les plus forts, on le dit. Vous êtes dans de meilleures conditions. Donc, n'acceptez pas, n'acceptez pas d'être soumis à ce régime finissant. C'est fini. ngir yàlla yéen magistrat yi dimbale leen ñu ci affaire Ousmane Sonko bi parce que moomu leen seen bopp Sénégal moo leen moom. li nga xam ne moom leen askan wi gisee di leen ko teg ngeen profité ci lii dindi ko pour changer mën na commencer ci benn nit c'est pour cela que ce juge d'instruction a une responsabilité historique aujourd'hui n'ayez pas peur dañ ne justice vous la rendez au nom du peuple sénégalais ce n'est pas au nom de Macky Ce n'est pas au nom de son gouvernement, ce n'est pas au nom de qui que ce soit. Dans votre conscience et, comme on le dit, euh, conviction intime, vous devez aujourd'hui, monsieur le juge, entendre Ousmane Sonko et comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un complot. Parce que vous, mais comme je disais tout à l'heure, Macky Sall ne sait même pas comment organiser un complot en tant que chef d'État ku mënul organiser complot ci benn nit nan nga mën a jiiteem réew et je voudrais aussi m'adresser à la communauté internationale parce que il est en train de plastronner aux États-Unis, Nations Unies, président de l'unité africaine, il va en Arabie Saoudite, etc. Mais de grâce venez, venez, allez en profondeur, vous, de la communauté internationale, pour savoir ce qui se passe chez nous. Pourquoi vous ne parlez pas Pourquoi vous parlez pas à Khalifa Sall, à Edembo et aux autres Le Sénégal, ce n'est pas tout simplement Macky Il vous vend un vernis. Ce n'est pas la réalité. Creusez. Et quand vous creuserez, vous comprendrez que La démocratie sénégalaise est en recul, elle les moribonde aujourd'hui. Vous comprendrez que dans ce pays, on bafoue des libertés. Vous comprendrez dans ce pays qu'il y a un président de la République qui ne veut pas respecter les dispositions de sa constitution. Ça est plus grave. Quel est parmi les chefs d'État auxquels il rend visite qui va se permettre d'acheter des armes de guerre, des fusils d'assaut pour des agents de eaux et forêts, des lacrymogènes. Mais contre qui Les hyènes et les sangliers. Je pose la question. C'est un scandale. Quand un de vos collègues prend des décisions de cette nature, vous devez vous poser des questions. savoir qu'il y des choses qui vont, qui vont, qui En tout cas, il doit se résoudre et comprendre troisième candidature est impossible. Il doit et comprendre qu'il pleuve, qu'il donne une neige, que Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle en 2024. Inch'Allah, Khalifa Sall le Inch'Allah, Karim Wad veut cela. C'est ça aujourd'hui le Sénégal, rien d'autre.